ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfu bu baax sunu mbokk internet yi ñuy topp di ñuy suivre saa nekk ci site bi ñu naan ko 221 people tey nag dama fas yéene dalalaat beneen gan boo xam ne ni ñu ngi koy tuddee Serigne Cissé mu Serigne Babacar nga xam ne saa su nekk mu ngi def ak ñun émission ndax euh, yéen a ko soxla di koy laaj info ñu indil leen ko damay bàyyi mu nuyoo ko mbokk internet bi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin rabbi sarax li sadri wa li amri waxlul xoqdata min lisaani yafqahu xawli subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta alimul hakim mbokk yu baax yi ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di nuyu ci nuyu bi gën a sakkan na gën a yell muy baatub asalaamaaleykum wa rahmatullah Seyna Cheikh jërëjëf euh, sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ñu ngi lay fay bu baax dañuy fas yéene dugg waxtaanee lépp lu bokk ci mën naa ne ci ñaan mais li ci ëpp ci actualité la ñuy ëpp tey la ñu waxtaanee ndax euh, mënta ñàkk. mais fi may tàmbalee dafa mel ni actualité bi kenn demut ustaas yi des dañoo seetlu ne ustaas yi léegi jamono ji léegi mm. li ci ëpp seen biir kii dee wax jëmale nii kee wax jëmale nee mm. mel ni féewaloo dafa am seen biir ak yooyu noonu lan nga ci àddu. Euh, fa tabaarakallaahu Seydina Cheikh ndax waxoon naa la ci émission bi mujj a def ne lépp loo xam ne bokk na ci daara ji bu amee yëngatu yi ca ne war nañ caa mën a waxtaan waaye ñaareel ga réeroo du dee am maam Abdou waxoon na ne danañu tollu jamono nit ñi danañu firi allahu firee ko beneen firin bu bokkut ak bi ko nit ñi déggee la waral loola nag lan la mu ne ngir dërëm yooyu ustaas nag di def yooyee ngir dërëm dërëm bu ànd ak bës waaye allahu la ci sunu borom namm boo ko ca waxee dana la jox bës jox la dërëm lenn ci ustaas yi ngay dégg nag masala bi doon lii ñu waxee masala bi nële seen bakkan lanu topp topp nu sarixan dafa bari ustaas yoo xam ne ci jamono bii may waxtaaneek yow tënkuwunu sarixan ci seen bakkan lañu tënku Seydina Cheikh jërëjëf sëñ Cissé du ma la déggee kon mën naa ne seen féewale bi léegi li ci ëpp mën naa ne euh, topp seen nastu bakkan la alal a ngi ci biir leneen ak leneen mais pas du booloo li ñuy séntu ci ñoom ñu def ko. waa xam nga sëy naa Cheikh man li ma gëm man Serigne Cissé mu Serigne Babacar ku am cër da ngay nangul borom cër waaye ki amul cër nangulul borom cër ustaas yi diina tax a jóg ñoo ngi ànd ñoomi kese. foo mantu dem sa morom wuutu la fa ustaas yi amuñu benn problème ñoom la leen war ñoo nga ca ñeneen ñi kay ñoo nekk ca leneen loo xam ne naka su dul noonu waaye ustaas yi la leen war ñu nga ca féewaloo nekkut ca man sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar Sy de gisuma ustaas bu féewaloo bu ma ko gisoon nag ne la sëy naa seex diw sànga mu ne naa mane la nekkut ca la ko yoon sant kon ñoo nga ca ñeneen ña ca nekk nag ñoom nee naa la ngir dërëma leen fa tax a nekk si naa seex jërëjëf dégg ngeen ko euh, ñi ci nekk ñu ngi ci di def li nga xam ne màcc na ay ñu ngi jàngale di digle loo xam ne mën nañ leen cee topp jëriñu mais ñi ca nekkut ñooy ñooy ñan donte waxoo ma seeni tur nga junj ñu mën a xam ne ñii nii taxut bokk ci ñoo xam ne ay royuwaay lañ ci réew mi xam nga xam nga man damay man duma wax sax naqarlu ndax baatum naqarlu dafa diis ku mel ni oustaz Omar Sall xam nga mbooloo mu bari dañ koy bàyyi xel boo demee Facebook am ñu bari dañu koy bàyyi xel uh, nga dem YouTube am ñu bari dañ koy bàyyi xel ba benn jamono may dox dégg muy laal koo xam ne kenn waru ko laal na Tijaan ki waral coow lu ci réew bi ki sëriñ Babacar xooloon ba mu ko neex mu ne ko talaxat lana samsul huda kusifa duja li ma nix waaye badrul huda fawsul a ax ni xalifatal ahmada sëriñ kër wax lii ci Seexina Tijaan kenn koo xam ne di jaam ci biir jaam ñi muy Oustaz Oumar Sall sun borom am lu mu dogal ci moom mu tënku ci lenn ñu ñu tuddee Ibaadu Rahmaan damay faral di wax ne képp koo xam ne sun borom def na la ngay jiite ay nit topp ci sa ginnaaw waroo wax wax joo xam ne ku bokk ci yow bu ko déggee tiit ñu toog fii dégg mu ne Seexina Tijaan da daan soppi mu dem ci jawharatul kamal allahumma salli wa sallim ala hayni rahmati rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqiqatil bi markasi alfuhumi wa mahani wa nuuri akwani almutakawinati addami saahibil haqi rabbani albarqi assahibi musoni arbahi maliati li kulli mutaharidin min albuxuri wallawani dem ba ca mutalsam ja mu am lum ca xisaab wax ko te lam wax wérut amut wérut sëy naa Cheikh moom moom waroon nañ ko waxal beneen garaat ba mu des euh, poñatum àdduna ay soppeem xaalis loolu ci ñoom la des sëy naa Cheikh valeur kenn du ko méngaleeg ay xaalis kon foofa dafa daanu daanu gi na képp ku nu yaakaar ci sa ginnaaw ñu bari di la bàyyi xel danga war a moytu yooyu dugg ci ay détails kilifa du dugg ci détail te gis nga kilifa gu ci bëgg a wormaal sa bopp nanga moytu détail wala seet benn nitu yàlla di ko cof wax naa ne mën nga tooñ nitu yàlla mu baal la waaye martaba bi mu ànd ak du la baal moo tax wax ci nitu yàlla wóorul gis nga boo amee cër nekk ci daara ji ku mel ni Seexina Tijaan di seetu Seydina Muhammad nekk fi yow ngay roy yonent bi sallallahu sallam kon yow lépp loo déggoon muy lu tilim danga ko war a effacer kon Oustaz Omar Sall ci diir bi mu nekk di xencu sunna lépp luy lu tilim da ko war a effacer ndax njàngalem ñu ngi koy bàyyi xel kon leeru mu wax ci Seexina Tijaan na fexe ba yu mel noonu na koy moytu ak ñeneen ñu dul moom di laal kilifa yooyu loolu wóorul na ko bàyyi na ko bàyyi na ko bàyyi loolu wóorul ci moom wóorul ci ñi koy déglu na ko ba sëñ naa Cheikh. Euh, am na solo Serigne Cissé mu Serigne Babacar ci gàttal rek su ma la déggee kon yow jëf ji mu def neexul la rafetlu woo ko euh, euh, lan nga fa bëgg a wax ci gàttal rek maanaam. la ma ci bëgg a wax mooy ne. yow nga nekk nit koo xam ne nit ku ñu ràññee la. ay doomu aadama yu bari di la bàyyi xel. ngir sa yar sa dal sa xam-xam ni koy partagé ak doomu aadama yi dafa am benn jamono ma toog fi di benn vidéo gis ko muy jàngale sangu set ma ne ko lii la mi soxla gis muy wax ay sunnaay njàpp farataay julli di ko wax lii la penc mi di xaar ci borom xam-xam waaye penc mi xaaruñ borom xam-xam buy jël di ŋàññi borom xam-xam te loolu nit ñi dañ koo bëgg a def farata te nanu bàyyi yooyu oustaz Omar li mu def rafetlu wuñu ko te duñ ci d'accord ak moom na bàyyi loolu baaxul day indil problème boppam indil problème njaboot gi ci ginnaaw say naa Cheikh ci gàttal daal na bàyyi loolu rafetlu ci duñ ci mos ànd ba ilaa yu min bas jërëjëf sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar euh, dégg naa fi nga daaneele foofu sax laay sukkandiku mën a samp sama laaj bi ma la bëgg a laaj ndax dama seetlu def naa ci remarque ci sëriñ su bëri euh, dañuy def euh, seen émission ñenn ci sëriñ si man euh, xaw ma lan laa ko mën a wooye xaw ma ñeengo la xaw ma affaire ban genre xam-xam la ay gis ñoo xamante ne dañuy def lu mel ni genre xaw ma affaire karaama lañ koy wax xaw ma nuñ koy wooyati noonu ndax yooyu sëñ Cissé da ci yëngatu lool sëriñ soos di def lu raglu lool mën nga ko wala mënoo ko ndax dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñooñu ñooy sëriñ su ay waa xam nga sëñ naa Cheikh dafa ci am loo xam ne mën nga ko def mu jural njëriñ doomu aadama yi am loo xam ne mën nga ko def du leen jural njëriñ waa ci question bii nga may wax mën nanu ko dañ ko dul fësal léegi mën naa la ci wan menn mbir moo xam ne ku ne topp na ma ci ñii di yëkkati alal naan dañoo bëgg nga def ko ñii di wax yeneen et te taxul nu def ko waaye nag jamono day toll foo xam ne def ngir weddi tuuma la ndax boo ne mën naa te waxu mu ngi nii dañ naan la mënu la ko moo tax ma defal leen ko sëy naa Cheikh waaye bu doonu loon ak loolu duma ko def ndax réew mi boo ne mën naa danga naan leen mu ngi nii li ñuy wax ne policier maa fekkee la bëgg wala mu ngi nii rek looloo waral ñu jëf ak yéen lii daal di leen ko wan waaw waa jëf jii nga def nii nii lii nii ci lan laa ko mën a natt tey duma ko doon natt ñeengo la wala ci xam-xam la wala lan la ndax damaa gis yéen ci sëriñ si di koy def ak pour ñi nga xam ne ñu leen di bàyyi xel lan lañ fa mën a euh, jëriñoo ñi koy seetaan. la ci lu mel ni ataaya ji nga gis nii ñu def ko nii di ko def njëriñ yu bare ci yoo xam ne duhut ataaya joo xam ne seen nañ ko ci carton gi muy baax rek du noonu ataaya ja nekk na njëriñ loo xam lamboon a xéewal yu baree bari jooju ataaya bokkut te ataaya ji ngay teg ci baraada bi nàngam xam-xama la ko defloo ndax ab carton ci taal kenn ku ne xam ne ne boo ko ca tegee te xam-xam tegul ca day tàkk kon boo tegee carton def ndox jël ataaya suur man caa suukar def lépp naan a ah, loolu xam-xama koy def waaye nag dafa doon loo xam ne am na ñu mu ñor am na ñu mu ñorul li ñor nit ñi nag lenn la mooy fekk ku dof nga def ko nit ñun loolu lañu gën a fësal pas yenn yi nga xam ne nit dina ko di dégg ne ah kon sëñ Cissé mën na lii mën nañu ko waaye lépp luy ëlëm nit bokkul ci sunu doxin moo waral du ngeen koy gis ci sunu mbir lu baree bari. jërëjëf sëñ Cissé euh, mën nag li ma jaaxal ñu ngi boyal fourneau bi ba mu boy nga jël sa carton teg ci mën ni nga def ba carton bi lakkut fukkut looloo ma doon problème lan ay aaya nga dóor ba euh, li ma la laaj amut maanaam carton bi lakkut fukkut wala danga am loo jële ci ay jinne def ko ba lii nii mën a jàll nii lan la lii laa comprendre lan la pour ñi lay déglu. Euh, paasewul ñetti baat jat la boo xam ne paasewul ñetti baat bu ko defee ci luñ ko mën a def loolee danaan teg nga taxaw ñetti baat la yeggagul sax ci jinne yeggaguñ ci jinne waaye ñetti baat lañ ca tudd kon ñetti baat yooye moo waral loola mooy garante ca moom ba lu doon tàkk sax ñetti baat yooyu buñ ko ca waxee mu fay sëñ Mansour nee na baatin feeg man du jéggi frontière baatin nekkul fa baati baati nee na fa ne baatin da ngay nekk fii ni nekk fële di am problème nga dimbale ko ci baatin looloy baatin waaye feeg sanguwula baatin ñëwagut kon baatin ba wérul baati la sëñ naa seex jërëjëf kon baati la dégg ngeen fi mu daaneele damay dem ci sama cëppaandawu émission presque jeexal na dama dégg ci benn kilifa bu mag di benn sëriñ muy wax ba naan kii di Safarou dafa dee maanaam kooku noonu jinne la wala lan la doon. sëñ naa seex loo ma mos laaj li ma ci gënal man sëriñ si sama Seydi Ababacar Si sam xëroo sin ngay dégg ñu bari di ko tudd ne Samharoosin jinne la ku xam jinne warul wax loolu ni ma la ci joxe am firi mu yomb tegu ci jamono laa la koy tegal Abdoulaye wàdd mi nga xam ne moo doon président président ci réew mi bi mu génnee pale ba lu mu bu mu pale ba ba Macky Sall dugg fa lan la daan dégg lan lay dégg ah Ablaye Wade kese la de nekkatut président euh, maanaam sam xëroosin du jinne tur la mel ni nga ne président Macky Sall la siis ba fi mu toll moo ci toog moo tax mu nekk sam xëroosin tur la du jinné comme ni ngay déggee yaa jabaaru yaa qaharu yaa waliyu yaa muqitu yaa xasiisu yaa jaliilu yaa wahabu yaa rasaaqu yaa xanniyu yaa muxniyu ni ngay déggee tur yooyu tur yooyu ba ilaa ilaa ndax léegoo léeg nga dégg ne tur yàlla yëpp quatre vingt dix la waaye am na bu nëbb bu gisul muy ay mu talsam yu ci nekk yow mi toog internet àdduna di la seetaan nga ne sam xaroosin deena jinne la woon dee na samxaroo seen tur la ñiy bàkkoo jinne gis nga jinne ji gën a jongama ci jinne yi gën a rafetu doxalin tey day da norfoir jëm ci ci man danaan tereet làmmiñ bi sànni ko ca kanamam de birangu ci kaw làmmiñ wi di jëm ci ci man kooku boo ko dalalee te xamoo jinne nan ngay def jinne yi am na bis bu ñuy génn junne musulman yi taxaw di julli junne musulman yi am na ñu bis yu ñuy def karawaan du waxu média waaw du waxu média kon boo bëggee waxtaanee junne li ma la waxoon di waxtaanee jinne te am problème mu junne est-ce que xam nga jinné yow sam xaroo seen tur Macky Sall fi mu toll bu ñu doon wax moo toog ci siis bi ku toog ci siis bi yaay sam xërusin non tur la du jinne kii danay jinne damay dégg kilifa yu bari di ko wax sam xërusin jinne la jinne ja dee na tur la wu fi ne ku toog ci siis bi kooku sam xërusin la waaye ki dee anamu nekkatu fa kon dootul sam xarosin kon nanu fexe yooyu ñuy yaatal nu xam nan lay demee ci bopp nit ñi ndax bëgg lu ëlëm nit ñi wax loo xam baax na ci bëgg a waxtaanee xam-xam it wax loo xam baax na ci bu ko defee day gën a rafet say naa seex jërëjëf sëñ Cissé jeexal nañu damay bàyyi nga tàggatoo mais fi ngay tàggatoo ci seen mbokk sëriñ si nga ñaax maanaam se nga am loo ñaax sa mbokk sëriñ si ñaaxaale sa bopp ci lan ci lan maanaam yéen nga ñu ngeen bàyyi ci xel entre yéen seen biir yéen sëriñ si. waaw du lenn lu dul gën a bàyyi wante waat xel gën a soppante gën a bëggante gën a rafetal nekkin wi buñ ko defee mu gën a baax njëkkee ko ci sama boppi nag am ak woyof am ak dal te naa leen waaxiru daxwaana xan alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum jërë ngeen jëf